ñu ñëpp dañoo constaté benn insécurité bu am ci dëkk bi bu jéggi dayoo insécurité boobu noonu gis nañ ne ay agression ay vol ay assassinat yoo xamante ne nii mi ngi daw ci internet bi nga xam ne xale yu ndaw yaa ngi koy gis mag ñaa ngi koy gis ay images yu choquantes mooy comme femme bi ñu rey di Nagay wala it ki nga xamante ne moom moo di Omar Diop ñu reye ko ci VDN 3 bi mu it beneen infrastructure bu ñu tabax bu wuyuwul ci li ñuy xaar ci mbirum kaaraange parce que tabax infrastructure bu mel ni ay tali te amul li làmp yu ko leeral bu yenn heure jotee doomu sénégalais yi mënuñu fa jaar kon mu bokk ci poñ yu ñuy ñaawlu waaye ñu seetlu rek ne ña nga xamante ne ña ngay def agression yooyee ay armes yu fasantiku lañu yor ñii ay bomb yuy am gaz lacrymogène ñii di xoj ñii yore ay paaka ñii yore ay jaasi façon bu ne mais ci benn violence bu jékki day boo xam ne musuñ koo seetlu fii ci Sénégal muy rek li ko ci ëpp nag fii ci biir Dakar la mais mu doon loo xamante ne nii dafay wane lajj bi nga xamante ne nguuru Sénégal lajj na ko lajj bi nag li ko gën a jëmmal mooy bañ tabbee ca ministère de l'intérieur kii ñuy wooye Antoine Félix Diome moom daal wax dëgg fa yàlla bi mu ñëwee léegi dayo bi mu jël ak kattan bi mu jël énergie bi mu jël def ko ci uti ay matériel yi nga xamante ne nii pour aaye ay manifestation la mooy maanaam lu jëm ci ay dragon oto buy sotti ndox te yu policier yi di sol pour manifestation maanaam mbirum état policier lam ca mën ci investir ko ak ut ko ci ay jumtukaay lu toll ne tarafatal ay nit ci loolee defu ko ci pour assurer sécurité citoyen yi benn lacrymogène rek ñaar fukki junne lay jat daanaka ñu yor ci ay junniy junni duñ ko génn lukk lu dul activiste yi woote nañ opposition bi woote nañ syndicat yi woote nañ kon ñoom ci loolu dong lañ nekk boobu ba léegi bàyyi sénégalais yi ñu nërmelu ci njàqare nërmelu ci jafe-jafe nërmelu ci ñàkk kaaraange ndax amuñu ku leen toppatoo amuñu ku leen wallu amuñu lu leen wuutu amuñu fenn fu ñu mën a dem lu dul ne jàkkaarlook ay samba ay defkat yoo xamante ne nii kuñ ci jàkkaarlool maanaam yàlla na la yàlla yërëm beneen bi mooy li gën a garaaw dañoo jàpp ne bokk na ci li jëmmal loolee ci lu jëmmal jafe-jafe yooyee poñ bi ci njëkk mooy Sénégal benn sénégalais ne à mesure wax ñu naka la ñuy defee grâce présidentielle da xëy rek benn criminel boo xam ne ñëpp xam nañ ko wala def na lu ne ci dëkk bi rey na sax nit ñu gracier ko baal ko bàyyiwaat ko ci société bi mu ñëw kenn xamul ci ban critère lañ ko teg kenn wóolootu frontières yi mel ni caaba yaasin ku mu neex dugg nu mu la neex nga duggee amul benn contrôle Sénégal réewu teraanga la dëgg la naam waaye nañ saytu xool kan ak kan noo duggee ak fooy duggee beneen poñ bi bi ñu ci ëppal solo mooy ne ñun Y'en jàpp naa ne askanu senegal lu ci ëpp dañoo sàkku Antoine Félix Diome ci boppam tekkil boppam ay ndomb tànkam parce que dafa lajj parce que dafa cuune bu ko deful Macky Sall ci boppam na jël ay responsabilité wàcce ko ca post ba mu ko teg parce que dafa fayir ministre de l'intérieur boo xam ne bi nga ñëwee ci la réew mi gën a am insécurité te yaa war a assurer la sécurité des citoyens et des biens mooy wane ne yow mii da fay Sénégal dañ fi constaté xeetum drogue bi gën a bon yàmbaa ji daf fi gën a tar am na yu xale yi di jëfandikoo ci buntu école yi dañ koy jaayee muy Jakarta sangara buy jar 300 francs ay jaaykatu cigarette ak sàngara Jakarta ci buntu l'école yi lañu nekk soo génnee guddi gi nga gis lu ñuy woowee volet suñu doom yaa ngi koy naan suñu frère yaa ngi koy naan muy ay ante amphétamine yoo xamante ne nii ñu ngi koy jëfandikoo ci dëkk bi mi ngi lore mi ngi lor askanu Sénégal lan mooy liggéeyu ministre de l'intérieur su dul ne yow mënoo contrôler càmbar saytu li nga xamante ni mooy lor askanu Sénégal kon sàkku nañ ci moom réew bu am fulla bu ne am développement bu ne yaakaar avancé bu ne buñ la tabbee ci post bu toll nii ministre de l'intérieur soo matalul da ngay tekki sa ndomba tànk bàyyi xam ne mënuloo keneen ñëw boo ko deful kala fa na jël responsabilité am tebbi la fa loolu ñu ngi koy wax sàkku nañ ko di wax que ne ñi ngi ñaan ñu renforcer takk der yi renforcer police bi may leen plus de doole ak plus d'équipement xoolaat seen salaire yi parce que taxaw ci tali di laaj ay ñaar dërëm ak ñetti dërëm salaire yi doyul moo ko indi kon bu ñu leen defaree li ñuy woowee yokk seeni salaire parce que ñoom it ay sénégalais lañ yàgg nañ fay dégg bu njëkkaan nekk policier wala nekk professeur da nga daan sawar ci nekk ko parce que vocation la woon mais jamono ji neexul salaire yi doyul amul ay avantage amul lenn lu ñu leen defal kenn du leen kenn du leen neexal te bés bu jot nga dégg ñu naan neexal nañ ay jabaru magistrat ki ay jabaru ambassadeur yu ñàkk fayda di lekk suñu xaalis bàyyi policiers yi noonu ñu toog amuñ tenue yu baax amuñ matériel bu baax ñu def seen liggéey amuñu ay GPS seen contrôle mënul def parce que tablette sax mënuñ ko jox policiers yi ba boo leen joxee kayit bu baaxul ñu mun ko xool fañ taxaw xool ne kii kayit bii mu ñu jox valable donc équiper la police de moyens jox leen policiers yi liggéey moyens yi mun defee seen liggéey loolu exiger nañ ko beneen bi ci topp mooy ñii ñuy wooyee ASP mais renforcer leen leen. yokk leen seen statut yokkal leen seen salaire ñu doon ay honnêtes citoyens yu gagné seen vie ngeen recruter leen ci police bi defal leen formation ba ca war pour ñu mun a am une police de proximité naam seetlu nañ juróomi fan yi am na ay jeego forum yaa ngi gis gendarmerie police taxaw mais bu mu fa yem te manque d'effectif bi li ko indi mooy ñàkk recruter parce que les les priorités de Macky Sall ak nguuram sont ailleurs que de que d'assurer la sécurité des citoyens loolu tamit sàkku nañ ko. ñi ngi sàkku tamit pour que police mën a def liggéeyam bu baax bàyyi leen leen ñu am seen syndicat il faut que police am syndicat parce que police bu amul syndicat pour mën a toog revendiquer ay jafe-jafeem kaasal boppam wax ñu jafe-jafe ñun ñu xam ko dégg ko mun cee àddu loolu du sotti donc mooy seul mbir mu nga xamante ni du yoon police ne fi amul syndicat beneen bi mooy. États-Unis wala adduna bi yëpp amul fii ku fi xamul lan mooy 911 911 adduna bi yëpp xam nañ ko ab numéro boo xam ne la mu ngi tudd 911 911 États-Unis teg ko fa boo nekkee ci jafe-jafe boo ca wootee même boo coupé dañ lay woowaat foo munti nekk ñu fekk la fa kon walaay walaay walaay Macky Sall xalaatal teg benn numéro boo xam ne sénégalais bu nekk ci jafe-jafe dana ca wootee parce que booy dox ci VDN 3 bii ñu tabax muy pont Limaamu Laay bi ci lëndëm amul làmp amul sécurité bu la ay samba booy dogalee kan ngay woo soo génnee téléphone boo ñoom jël nañ ko agressé nañ ko nangu nañ ko kon war nañ mën a def benn numéro raccourci bu yomb 111 la moo xam wala 000 la ba nga xamante ne citoyen bi dina ci mën a sikkandiku pour mën a wootee wàllu ci lu mu gën a gaaw te bu coupé ñu mën koo àdd wala fekk fa mu nekk localiser ko parce que am nañ matériel Macky am nga matériel boo seytoo topp ñu ñun ñii yenn saa yi nga toog événement war a am nga yëg ne yow ñu ngi lay topp ñu ngi lay déglu ñu ngi déglu politiciens yi ñu ngi déglu opposition bi kon bu baax am ngeen moyens yu ngeen surveiller am ngeen moyens yu ngeen toppee askan bi am ngeen moyens yu ngeen def moyens yooyu na ngeen jël def ko ci répression def ko ci toroxal ak xoqatal def leen ko ci protéger askan bi loolu lañ leen di saas beneen ba ca topp bëgg mu am benn commission bu ngeen bu ngeen teg buy saytu mbirum grâce naka lay demee parce que grâce yi nag saa doy na waar il faut que ñu saytu ko mbirum grâce commission boo xam ne maanaam kuréel bu ñu teg buy mën a saytu kan lañu war a yi ak kan lañu lañ warul gracier ba ca topp mooy ñi ngi ñaan askan yi ci gox goxaat yi ngeen dimbali police pour mu mën a def liggéeyam bu leen nëbb Samba Boye bu leen ko nëbb parce tamit la police c'est les populations population yi pour sa propre sécurité boo xamee samba booy wala defkat sa gox boole ko boole leen samba booy yi boole leen jaaykatu yàmbaay yi ci gox yi boole leen fàqmaan yeeg defkatu lu bon yi ci koñ yi parce que loolu tamit daf ci am solo munuñ protéger defkat ci suñu ay koñ nañ fexe ba ñooñu ñu bàyyi la ñu def te loolu population yi rek ñoo ci mën a adhérer pour jàppale ci force yi ñu mun koo mun a def waaye dafa am lu ñuy woowee loolu gox yeeg goxaat yi muy maire yi ñu tabb bees yéen maire yi ñu leen di ñaan ngeen sasoo ñaari mbir bi ci njëkk mooy édifice walla bërëb jardin public wala lu mu ci mënti doon loo xam ne tabax nañ ko ñu abandonné ko wala muy ay kër yi yàqu ngeen gis ne waga yi ñu ngi koy fréquenté mooy suufu pont yi il faut que ñu rendre ces ces endroits vivables viables pour que nit ñi di fa mun di dem xam nga tabax ay pont bàyyi ko noonu ci suuf amul sécurité amul dara amul làmp kenn mënu fa dem guddi gi wóorul boo fa jaaree sa bakkan mi ci xottu gerte kon ñu leen di ñaan yéen ñi nga xamante yéen la ñu fal bees ci maire yi ngeen récupérer ces endroits là def fa ay fleur def fa ay làmp def fa ay banc askan bi di fa ti dem ba nga xamante ne nii defkatu lu bon yi fàqmaan yee xeet googu duñ fa mënati dem loolu bokk na ci sécurité waaye beneen bi mooy leeral leen mbedd taal leen lampi mbedd yi li laay war a sóoli taal leen lampi mbedd yi ci gox yi ak goxaat yi loolu mooy tax sécurité mën a am ci mim réew kon nag pour jàll ci boobu aspect ma dem ci beneen poñ bi nga xamante ne mooy mbirum judiciarisation de du débat politique mooy maanaam waxtaanu mbedd sax léegi Macky Sall fexe na daal ba nu mu ko ëlëmee ba yow boo toogee sa buntu kër sax waxtaan fa ci sa ban jaaxle na la ci tëj kaso waaw léegi loolu luy ñu nag ci mim réew di leen xas di leen dénigrer dara du leen ci fekk waaye yow boo àndut ak ci sàll ñeex mi am na cere ji am na ñeex ñu ne la xuus yóbbu bëkk ci mujj ñaar sax laay ñu ci mujj muy gas Salvador fële ca ndar dañ koy jaay doole dañ koy jaay doole ba ñu ngi nii nar ko cee tëj juróom benn weer yoo xamante ni benn weer bi dana ko tëdd ci biir kaso bi waaye Cheikh Omar Diagne lan la wax lu keneen waxul lan la def lu keneen deful def na ci kaso bi quarante jours loolu la ko ëpp bàyyi leen jàmbur bu mu génn jëm ngeen sax yàq deram ci biir di génne ay vidéo am kon justice bi dafa nekk justice boo xam ne dafay sooxee soo farul fii yat bi dal sa kaw soo faree fële yaa ngi yaataa yumbe kon ñu ngi exiger ñu libérer ñaari doomu Sénégal yooyu ñu dem doxi seeni soxla parce que jàpp bi ñu leen jàpp teguñ ko ci dara lu dul ca seen coobare bopp ak ca la neex poñ bi ci mujj nag muy contentieux bi am ci laataa ñoo dégg ma élection yi dégg nañ ci lu ne ay liste yu am problème bii wala bële ay liste yu am jafe-jafe muy bii wala bële jafe-jafe yi nag bëri na ñuy wax ci mbirum parité mooy maanaam jigéen ñi ak góor ñu ndax nañ ko defee limba am na ni mu war a amee ñeneen yeneen yi ñi ngi naan nombre yañ joxe ci ay parrainage dafa bëri waaye loolu rek dafa ñuy dëggal ñun ci suñu position bi ñu amoon depuis mille 2015 mooy taxaw di xeex parenage parce que bañuñu parrainage encore une fois mais parenage bii Macky di def mu tudd maquillage boobu la ñu bañ bi nga xamante ne acteurs yi d'accorduñ ci amuñ ci consensus xamuñu tenants yeeg aboutissants yi daf ko tëgg teg ko pour mën a xoqatal wala filtrer ñam bëggul ñu bokk ci yenn élections yi boobu lañu ñu ne ñun ànduñu ca. xeex ko ak énergie bu ne ànd ceeg suñu yeneen ñi nawle yoo xam ne ñu ngi ci société civile bi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir wàllum politique bi kon loolee moo jur tey jii brouhaha mooy jafe-jafe bii lëndëm lëndëm bii ñu gis ci affaire liste bi waaye mouvement bu mel ne Y'en a marre comme askan bii fi ne nga xam ne dañuy taataan rek information yi autorité yi ci wax waxaguñ ca dañu dégg ci liste yi borom liste yi ñoom ñoo ci àddoogum ku ne ne sa morom deful lii wala deful lee ni ngi wax nag conseil constitutionnel mu jël responsabilité te wax dëgg ni ko suñu code électoral waxee kon xalaatuñu benn yoon mu am ay tappale mu am ay njuuj njaaj mu am ay puusum élection nañu respecter le calendrier républicain nañu daan ñi ñu war a daan ndax ñeneen ñi ñu daanul lañ def ba daanuñu leen dañ ko war a magnifier waaye na jël responsabilité am te bu ci indi ab parparloo